li ngay seen nii ci vidéo bi mooy ndoj kaw ñu di ko tuddee astéroïde ci làkku français moom astéroïde mi nag saa boo xamee ni fell na ba taataañal jëm ci jawwu suuf si moom li ñu tuddee météorite jamono ji mu taataañale nag melax googu muy def mu tudd météore waaye na nga ko moytoo jaawale ak comète ndax moom itam benn la ci ndoj kaw yi waaye yore jagle boppam ak ndonta ndoj kaw la waaye duñu ko tudde ni ki jëmmi yi nag nekk lu ràññeeku ci biir géewub boroom xam-xami càmbar biddiw ba suñu doomi réew mi di Maram Kayré tudde nañ ko benn ci astéroïdes yi moom mi nga xam ni mooy saa Sénégal bi ñu njëkk a benn ci ndoj kaw yi waaye mooy saa Sénégal bi ñu njëkk ci bayaalu kaw bi nekk jàmbaar ci lef mii mu yëngu di ci indi ay njàngat ak ay mbir yu ama am solo mu nekk ndamul senegal di ndamul képp ci doomi réew mi ngir nag ñu xamal la lan mooy astéroïde dañu lay wax ndem bëgg nga dooleel suñu càllale gi ba mboolem li ñuy yaatal gën yaatu ba nga mën cee jot bul tey mukk ci def li ñu tuddee layk muy zeme saab boo ubbee suñu vidéo waaye itam saa boo gisee ni am nga ci xalaat mën nga commentaire mu njëñ si su bëggee nag mu am doole ba mbooloo mu gën a bari man cee jot da ngay partager bu baax a baax. vidéo bii ñu la njëkk woon nii misaal la ci benn météorite météorite bu doon daanu te wax naan la mooy lu fell ci astéroïde bu duggee ci biir lii di jaww ji waaye dañu lay joxaat itam beneen boo xam ni ci weer wi la daloon muy niiralu bu dalee ci weer wi ni muy mel ngir nga gën a naan limitroïdes yi te mooy fëtlite astéroïdes yi di dale nag ci suuf si ak ni ki nga koy gis nii ci weer bi noonu noonu la ñuy dalante ñoom itam ci seen biir waaye ne lañuy bàyyee ay njeexit yu rëy ci kaw suuf si bu ñu dee jàngat ndoj kaw te muy astéroïde ci français dañu naan la ay xeer la yooyu yenn saa mu toggaloo ak xeetu weñ wala yenn ci xeeti mbel yi def aw doññ wala xandeer wala lu day ni muul di fii ci kaw asamaan si wala ñu ni di fii ci bayaalu kaw bi muy l'espace aérien ci biir pay gi muy pay nag daa ay form ay melo ay mbindin yu wuute yoo xam ni yi yëmul ci wenn wala benn tënk loolu tax na day nekk lu ci baree bari lu runki ranka yenn saa mu mel ni lu ñabaloo def benn lumb tolluwaayam nag ci rëyaay yurut wenn melo yenn saa man naa rëy lool ngand ba jiggi dayo waaye yenn saa mën naa ndaw tuuti rëyaayam yenn saa dañu ko mën a gam-gamle ci nangami junni junni kilomètre ci rëyaay wala nangami junni junni mètre ci rëyaay yenn saa itam mu rëyee ni ay mètre wala lu ko gën a ndaw ñoom ndëkkaw yooyu nag muy astéroïdes yi bi ñu ci njëkk a feeñal dañuy wax ni mu ngi tudd Sures ñoom ñëpp nag dañuy wëri jant bi bokk ci suñu nose jant bi di fii ci ngel mu tal maanaam air bu tal niki nga xam ni noonu la yeneen dér yi te muy li français di wax planète di wëri ci biir ngel mi muy l'espace bi ñu di ko wax bayalu kaw li tax nag duñu leen mën a jàppe ni ki ay déeli muy ay planète dafa fekk ni seen orbite bi ñuy jaar ak système bi ñuy wëree jant bi bokkul ak ni ko planète di defe naka noonu itam seen taay muy seenub dayo ni ni rëyee wala ni ni tuute du àgg ci dayob nekk déele ndax déele yi nga xam ni dañuy nekk yu ndaw àggunu ci dayob planète dañu leen di tudde ay déelantaan muy planète neen duñu leen sax a boole ci déele yi nga xam ni ñoo yore na sa bi loolu moo dal dernier planète bi nga xam ni dañoo wax ni dañu ko génnewaat ci nos jant bi ci gis-gisu ñenn ci worom xam-xam yi càmbar biddiw yi la tax mooy dañoo jàpp ni planète boobu dafa ndaw bu ëpp kon waratuñ ko jàppe ni ki déele muy planète waaye dañ ko war a jàppe ni ki déelantaan muy planète neen planète boobu nag mu ngi tudd Pluton wala Pluton waaye nag du ñëpp ci d'accord ndax am na ñuy opposé boobu idéologie daan ni ak lu mën a xew dafa sori rek nekk ca njobbaxtal la wala ñu ni ca jërëg ba waaye lu mën di xew dana wër boppam di am ay bis ay fani boppam waaye lu mën di xew itam dana wër jant bi ba am am atam kon mëneesu ko génne ci déele yi ñoom astori yi di nag fi ñu gën bare mooy liggéeyali diggante Mars ak Jupiter maanaam diggante ñaari planète yooyu foofu la ñu gën a rumb rumbe fa la ñu gën a rumbaxloo maanaam fa lañu ñu ëppee di wër jant bi ñu di ko tudde laxasaayuk ndoj kaw yi maanaam yoon wi ñuy jaar moom lañuy tudde ci français ceinture d'astéroïdes am na ci nag yeneen xeeti astéroïdes yoo xam ni ñoom nekkunu ci laxasaayuk ndoj kaw yooyu muy seenti dastur yit boobu waaye ñoom dañoo yor seen yoonu bopp di galasaanu di galajaanu suuf si ñu leen di tudde géocroiseur muy ngalanjaani suuf yi wala ngalañaani suuf si jëmmi ndoj kaw yooyu nga xam ne nag ñoo yore seen xàll wu galajaanu wi ak suuf si yenn saa ñooy mbëkkante ak suuf si saa soo xamee ni nag benn astéroïde war naa mbëkkan ak suuf si lu ci bare bari day def li ñu tudde fell walla ñu ni teleesu loolu nag astéroïde boobu nga xam ni moo teleesu telli si ci moom war a dugg ci atmosphère bu suuf si muy jawwu ju suuf si moom la ñuy faral di woowe météorite saa soo xam ni météorite météorite ñu di ko wax itam météorite cabaxal na ci biir jawwu ju déele bii di suuf xëy jooju muy def moom la ñuy tudde météore waaye lu ci bare bari nag su tabbee ci biir suuf si dana jippi tàkk mën na fee bàyyi njeextal lu rëy rëy bu collision amee muy mbëkkante njeexit la mu fi bàyyi nag mu ngi tol rekk ni dayob ndoj kaw bi nga xam ni moo fell wala pellit ji ni mu tol gaawaayam nag bu xësee ba dugg ci jawwu suuf si mën naa gaawe ni fanweer ak juróom-ñeenti junni kilomètres par heure jàpp téeméeri junni kilomètres par heure maanaam ci waxtu wu nekk ndax dana far far ba kera mun a yuréet fa mu bëgg sotteeku